sa tur ak sa sant di leen jaajëfal fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew bu ñu nee quatorze août sa xel day dem ci li nga xamante ni jam production moo ko woote muy kéwal ak xale bi di euh, nu mu tuddati waay sa adversaire ba nu mu tudd sa adversaire ba bu Fatick mbokk yi ñu war a laale mu nekk combat boo xamante ni combat bu méttee métti métti la gis nañ Jokkel mbokki bi mu demee fële ca Maroc préparé ji bi mu ñëwee gis ngeen état de forme bi mu indi wax na nag jox ki nga xamante ne mooy kéwél dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu waxtaan bi kéwél maa ngi lay nuyu baax di la waaw maa ngi lay fay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur bu baax a baax hmm. di sant waa Bawol bi yëpp ak waa Medina di sant fépp supporteru Kéwel nag maa ngi lay sant di la talal loxo le 14 août ñu ñëw supporter ñu suñu diggante waa jooju noonu xam nga waaw di santaale daal ñëpp ñi nga xamante ne ñooy bëgg Kewel instant mu toll nii moom samay wax ci combat bi du bari lan moo tax non du bari lan moo tax du bari du bari rek adversaire bi génn na def ñaari sorte mhm. gis nga ko bi ñu ko jëli jee aéroport vraiment mu jógee Maroc indi état de forme bu jaar yoon nan nga ko gisee état de forme non man war na yàlla ne seetaanu ma ko sax dañ ma koy wax rek seetaanu ko demee non aw ma lu may seetaan dal ma jaral seetaan wallahi dañu ma ko wax rek mais seetaanu ma ko te mooy loolu kooku jaralut ma ay seetaani état de forme ak yooyu man fi ma toll ci lam toll naa foo xamante ne nii état de forme jaaxaluma ci kenn parce que dama denc lu ko gën a diis sama kër. Hmm. waaw. mais moom li mu yor doole la de. li ma la wax lu ko gën a diisane sama kër kooku kooku mburu la ci man rek. mburu mburu mu nooy nepp. ba ma ko wax ni ko kéwal dafa am ci lu mu jóge erreur boo xamante ne dal na ko ci digganteem ak Tidiane Faye mu fas na ko rectifier ci moom nee na yow ñi nga ñi la daan ñëpp moom daf leen a daan. loolu lépp garaaw loolu balaa loolu lépp di xew dama damay san sama gars yi yëpp xam nga combat bi du sama combat gis nga taxaw nii. Hmm. combat bi seen combat la man du sama komba xam nga ñoom grand Bada Joni na ngi nii ay ñoom grand Bada Sung ay ñoom Ndewaan ay Cheikh Diouf xam nga waa Bawol sans frontière bi yëpp daal. Hmm. suñu grand Mbaye Ndiaye grand bu baax. suñu entraîneur Eli Soukey falu ngoom Ngom na ñoom Ousmane Dëgër ñoom ñëpp daal combat bi seen combat la man kooku lijjanti ma dara. nee na ñi la daan ñàkk jariñu moom daf ko fowee daa fowee Tidiane Faye. waaw te yow ñooñu ñëpp mënuñu am dara nee na ñàkk da laa daan Tidiane Faye nag moom da a bëree ba temps waaw mais moom moom Mama Lamine da koo daan loolu duma ci sori sax Mama Lamine da koo jàpp fowee ko daan ko. Hmm. duma ko daan ko jël bu rëy. loolu rek la am lu ma koy wax. kon bul ma ñax daane ma nii la Tidiane Faye loolu affaire am la man lijjantiwuma loolu sax. Hmm. waaw mais na xam ne Mama Lamine de koo fooyee nag. Hmm. waaw li mu bëgg a xam mooy ba xam est-ce que Keweul faju na ba wér ndax moom nee na dara dalu ko musuñu ko jàpp ci gàlla nee na situation boo dund ci làmb dund na bu ko raw te daa noppi jàpp ñàmbur. loolu sama vie privée la du vie privée mam yoonam néew ci man lu ko dal ak ko dalul sama yoon néewut ci lu ko dal moom na toppatoo affaire am. Hmm. yaa ngi waaw na topp affaire am. man dërëm jotuma barke Seydina Mohamed dara daluma am na wax boo xamante ne nag nga jóge ci combat xam nga tension bi jàpp la yaa ma gën a xam xam nga nga wax loo xamante ne nii sax mooy loolu yàlla xam na ne gaa yi taxaw yëpp dañu maa mere ci wax boobu sax mais loolu lépp sama rek mooy loolu mais bu dee loolu la dugal ci boppam barke Seydina Mohamed mu ngi réere mbir. nee na da ngay dellu ci li nga jóge woon. déggoo li ma la wax moom moo jóge ci ndeef te desaat na beneen tëb bu ma la tebaat moom. moom ci defet la jóge man jógewu ma ci defet de lool la war a xam daa jóge ci ndéef nag tëb te dina tëbaat moom moom waaw yéen ñaar lan lañ mën a xaar seen diggante yéen ñaar arbitre na prip nan nga fas yéen a bëre ki di Jokkel parce que ñu bari nee nañu euh, kéwal bu arbitre na prip la day taxaw day jël taxaw déggoo li ma la wax man ku ma xam-xam ne samay combat day neex day métti xëy na nag lamb moom daa bari lu mu lamboo hmm. waaw mais combat bi Jokkel moom li ma koy wax man xaw ma nu ma sax combat bi laa jobel la tur doomu Keba Kanté <laughs> combat bi li ma ciy wax bariwut yaa ngi dégg en tout cas samay métuwaayi bopp man dama koy jël lépp lu ma waay conseil wala leen dinaa ko jël téye ko mais bu ma ñëwee ci arène ba man maay décider hmm. yaa ngi dégg barke Seydina Mohamed dina xeex dina bëre barke Seydina Fall dina xeex dina bëre barke dina xeex dina bëre bu arbitre ne prime nga dagg jëng non xaw ma nu may def mais dina xeex dina bëre su bañee xeex da koo mën a bañ mënu koo bañ. nee na li nga yaakaar amul de doole ju wér nee na doole bi mu am bi mu de. maa ko ëpp doole junne yoon maa ko doole foofu moom mën da leel ba yàqu. yaa ngi dégg dafa leen waaw yow kooku bopp bi daam karaw. kooku jamonoy loolu lu jamonoy Ablaye Wade la ba léegi barke Seydina Mohamed dafa magat daa leel lu tax fu mu tolluwaatu mel. moo tax muy gëlëmal gars yi naan daa ten sikkim bekk yooyu takki jaaro man maa ko daq takki jaaro ah, ah, fuuf ah, yow nga ne gisoo nga ne gisoo ko te yaa ngi wax non non déglu ma rek man maa ko daq an man maa ko takki barke Seydina Mohamed ne moom mii moo may expliqué lépp man aw ma lu ma koy seetaan moo ñëw di ma ko woon ma ne ko sa waay sori ma kii alo la li la wax maa ko oppi maa ko oppi andoon yoon li ma la wax maa ko oppi jaaro man bar ñett laay takkandoo maa ko gën a doon kaana gen koo doon star moom daal leel ba yàqu ab Ablaye Wadine la may wax muy tent sikkim di mel ni ab ivoirien bu ma ko jàppee dinaa ko. mu ngi lay xool ngi jàkkaarloo yow. wax boo taxawee dëggal sa bopp dinaa la dóor dinaa la daan maa la doole maa la mën. nee na combat bi du combat wax de wax la ci yow. non li ma ci wax nii sax bari na yaa ngi tax sax may saaraan. bëgguma ah. ci yow yaa ngi may saaraan loo sax li ma ko mën a xamal mooy lenn. Hmm. déggoo li ma la wax. combat bi man maa la déggoo li ma la komba bi buy jeex. buy jeex ci njambaar lay jeexee bu ma koy daan ci njambaar laa koy daane su ma koy ñàkk ci njambaar laa koy ñàkk te parewuma pour ñàkk combat bi leer laa la wax barke Seydina Mohamed sama bakkan laa ci teg lu mu laaj dama man maa décidé sama bopp du ma du ma déglu kenn waaw parce que da ngaa jógee ci combat sa diggante ak Tidiane Faye ñu baree baree bare dafa mel ni xamatuñu kan mooy kéwal lan moo tax ñu bëree bëri xamuñu kan mooy Kewel nga fas yéene ñëwaat war a laalee xale bi nga xamante ni. ah, ah da nga naan da nga naan mara moromam Ablaye Wade mii. mag la. Hmm, bul ne tib xale waay. yéen ñaar ko mag. waaye Jokal kooku magat la moromu Ablaye Wade la daa bopp bu mën daam karaw. booy bë booy bëreeg màgget nan nga war a. sama mag ji la maa seet toppuma ci moom toppaatuma ci moom. <laughs> déggal kee teel bi mag la déggal déggal paa bee la leer laa la barke Seydina Mohamed. man xale bu ndaw laa dama teel a bëri ah. teel a am tur rek moo ma mag téeméeri yoon. léegi booy bëreeg mbër boo xam ne da ne mag la nan nga war a bëreeg mag. ñëw ñëw du ma ko daan ko kese. amul bu arbitre prime nañ xaar ne da dox ci li ma la wax maay décider sama bopp du ma déglu kenn li ñu may koose lépp nee naa la dinaa ko jël téye ko mais li ma nar man maa koy defal sama bopp te le 14 laa koy wane. Hmm. aw ma lu may moytu wala lu may. xalaat hmm. waaw. ay ca pël bu rafet yàlla xam na ne kon ci bii lay daqa caaxaane sax fii lay daqa caaxaane yii escalier mënu koo yegg ci àdduna mukk ci àddina du ko yegg barrage bu garaaw moom daa dof sax combat bii moom laa gën a respecté sax ko combat bi ma jàll lan moo tax nga respecté combat bi non dafa bari waxte du dara ah dafa bari wax moom man xaw ma làmmiñam mu réew yi sax kañ la ko dal dafa am lu mu lu mu xalaat nag looloo tax muy wasasa si mais moom barke Seydina Mohamed ñemewu ma. mais liñ ko mosal kuñ ko mosal kat. dëgg li ma la nee na musul tukki ci combat. waaw yow tukki am na doole. ñëw na indi doon doole bu wér. arbitre fan la demoon Maroc. waaw yow man Maroc dama faa dem ba tay man bi may apprenti wu Maroc Dakar dama koy def aller retour. mais daaw jël vol oto dëgg li ma la ma laa koy def man Maroc jaaxaluma. mais moom vol la jël de. waaw yow voli lan. ay affaire yëpp buujoo laa doon dem Maroc du dara dama fa doon dem comme ndox Maroc gii du dara bu ma fa bëggoon a dem suba ak jàmm léegi ma wala ne la maa ay Maroc man feneen laay wax nga may wax ay Maroc jóge Maroc ñëw sa biir niwi say lex moo xam kon nga bëgg du état bu naturel waaye dem du man xaw ma sax maa lu ma bëgg wax ci moom a ngi bëri kooku du ma wax ci moom lu bëri li tax moom lu bëri laaj ma leneen hmm. waaw ma gaynde meroo fanaan wut mer sax gaynde moom chaque jour ni naturel rek hmm. waaw boo booy dellusiwaat kewel bi doon bëre deux mille quinze deux mille seize. bëre ceeg kan. xool leen ko mooy dellusiwaat. mooy bëre kewel bi bëre kan ak kan. kewel bi bëre Mama Lamine. waaw bëre Karateres. waaw bëre Aliou Mané bëre Laay Bey. Hmm. bëre Ndongolo bëre Kolifay numéro deux mooy dellusiwaat. kewel boobu moom la Jokal di am. moom la am. Hmm. moom am waaw. le quatorze lan lañ mën a xaar ci wàllu mobilisation parce que promoteur bi tëgg làmb ji. Hmm. ku ne xam na ni bis bi diggante kewel ak Jokal jaral na ko lu nekk. lan ngeen ci lañ ci mën a xaar ci ci Kéweul mu ñëw ci wàllu mobilisation. ñëpp ay teew supporters yi Medina kenn découragé wul bawol bawol yi yëpp dañoo mer yaa ngi dégg. Hmm. ci biir combat sax la ñuy gën a mobiliser wu ni combat bi jàll. ñoom xam nañu ki ñu yor man mbër laa bu ma bëree mbër laa ma bëreewul mbër laa loolu ñi may àndal ak ñëpp xam nañu ko. Hmm. lam nag léeg-léeg day muur comme ni ma la wax rek day baaxoo lam Mm. yaa ngi dégg mm. mais nag yére day tilim ñu foot ko mm. dañ koy soltey mu tilim suba nga dem foot lu mu set waaw baax na olof laa ko wax kon foot nañ ko ba mu set non waxuma foot nañu ko sax ay olof laa la wax yére da koy sol mu tilim nga xëy foot lu salaat yéen ñaar kan moo ci tilim yow wala moom aw ma ay olof laa wax rek juñ doy na boromam tam ah, da maa na boromam mais junj ñi ngay waxal ñëpp buñ ko déggul <laughs> ah ñu dégg olof xam nañu waaw Euh, dama dama jël ku mel ni Keba kante mhm. mu ne bawal bawal yëpp ci moom la ñuy soq ci yow la ñuy soqee ko nee na moom lu ko bawal muso yoreel rek dina ko fayeeku ci yow lan nga moom mbër bu Keba Kanté di mbër bu bawal di ko muso yoreel dara wala daa rak ñuy bëre ah doomam mooy bëre yow kan jokkel di doomu Kéba Kane. Kéba Kane te sax day déedéet moom maanaam kilifa la sax warut woon a wax ci combat beeg yooyu. xam nga mu yor daa war a rek comme ni mu yàgg di nootul parce que it tey jii am na nu mu doon waxee man xam nga ne mooy loolu du ma du ma bàyyi xaw ma nu nu koy ti Mm. du ma bàyyi weer ci benn fan. ay ca moom kay combat la fi nii. non ñëpp war nga amal. amut problème man dama koy daan sax andi ko drapeau bi mu mun am lu ma jox. ndil waaw loolu rek laa koy waaw ko wax leneen. koy daan loolu ñeme woo ko. yàlla xam ne dama koy daan yot ko Kéba. yóbbu drapeau bi ci ma jox waaw. force Kéba day jël drapeau bi force mooy loolu. jokkal waaw waaw. ko kay Kéba maa koy wax. muy jàkkaarloo yow wax ko kee ba yow laay wax damay daan jokel andi la drapeau bi. nga def si dara ñu def. <laughs> waaw. loolu de affaire am la man loolu de affaire la bu tabaskee ko di wax rek mu tabaskee yaa ngi dégg la de maa ko dàqa tabaskee al fuuf. Hmm. waaw bu dee tabaske àll rek ay tax a daan hmm. kon du dégg biti maa ko ma tabaske al li ma tabaske al tabaske ko al li ngay wax barke Seydina Mohamed dem naa fi Côte d'Ivoire béréje béréje ñu maak ñana si ñoom aw say maak sawaay mi nga àndoon fala ñu ak dunu garandoof mi ñëpp lañ leen bàyyi moom la ma fa def sax de ko faa def chaque dimanche damay béré te moom béré ji woon fa tabaski falaat korite korité fa def fa lépp màggal ak lépp kon moom daal bari wax di wax rek moom lu mu def def naa ko ba pare man dama damaa doon xale bu sobteel la génn fu mu jaar jaar naa ko bu jàll waaw na solo ñu lay jaajëfal bu baax mhm. di wax lan nga yan kàddu nga koy dénk non kàddu yi ma koy ay mooy leen hmm. li ma koy wax moom leen la dama ko ne moom dina xeex dina bëre. mu lay xool bu bëggee dina xeex bu bañee dina xeex bu bëggee dina bëre bu bañee dina bëre barke alxuraan. nee ko jokkel bëgg xeex xeex jokkel caw yow laay waxat bu arbitre bu ah, soufflé di nga xeex di nga bëre. caw la sant xaw ma nu mu sant. jokkel caw waaw bu bëggee dina xeex dina bëre. bu bëggee xeex xeex. waaye ñaata yoon laa ko wax ma li ma li ma bëgg laa def ma bëgg bu bëggee bëre bëre man damay décider laa wax lam ñaar la xeex la ak bëre ñaar yëpp laay andi bu mu ci bokk ñu def ko xaw ma bu ma ciy moytu. kan moo la dee. waaye kenn deewu ma. non li ngay confiance bi ngay dégager. déggoo li ma la kenn deewu ma man maa décider sama bopp. ci ñaata seconde. xaw ma ñaata seconde. lam xoolal góor la may góor mun dul ma rey dul ma fees dul ma def dara. Hmm. yaa ngi dégg bu arbitre bu soufflé barke Seydina Mohamed. dañuy reyante. Hmm. aw ma ci tànki ginnaaw ku bëgg a gis ko mbaa bu neex ñëwal la 14 août. jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax maa ngi lay jaajëfal bu baax hmm. waaw di santaat ñëpp daal di woo fépp supporteeru mbokk wool ñëpp kéwal nga ñëpp laay woo wool waaw maa woo waa bawol bi yëpp hmm. tundi bawol yi tout bàyyiwuma kenn maa ngi leen di woo bu ma limee sax mën na maa juum hmm. xam li ko tal tamlee Touba Refane xam nga waa réew woo xam waa Newraan waa Kombe xam waa Touba Toul waa Ndorong waa Koki maa woo ñëpp daal bu ma limee damay juum di woo waa sama dëkku maam. Mm. xam waa Lambaay xam nga waa Ngoy maa ngi leen di woo bu baax a baax di woo waa Ndondol. Mm-hmm. man daal maay woo bawol bawol yi yëpp di leen xamal ne leen mbër ngeen yor bu ngeen ko jàppalee mber ngeen am bu ngeen ko bàyyee mbër ngeen am. Mm-hmm. képp koo xamante ne nii yaay dégg sama kaddu nga mën a jàpp ci bi moo xam ma ñëw faak ma ñàkk faa ñëw. nañ ci jàpp waaw di sant daal ñëpp di sant sama gars yi may entraîné woon doon nii yëpp ñoom mbay nii ay Modou Saxal xama ay ñoom Cheikh Fall yanda sama booy Marle xama ñoom booy Sarr Ndof Eli Soukey xama di sant sama gars yi ñoom si te sama waa écrit hmm. ñoom Boursine ay ñoom Sall Bala Gaye xama carrière ay Ngooñaal Fay xama booy yëpp daal Ousmane Degueur man maay sant booy yëpp bu ma limee ñëpp rek damay juum xama hmm. di sant sama benn booy bu nekk Koros Mangu Jaan waaw Ndour Xasida mm. ñu ko gën koo xam ci Mamadou Dioum moom itam ay teraangaam yu baax la yor mm. du ko tay di def ci man mm. sama jërbaat leme la waaw maa ngi koy sant sama baat la day liggéey bo ngoon jot ne ma loo soxla ma ne ko nangam mu ne laalal ma ko ci wéef bi Koros Mangu Jaan la ne yor oto bu baax di sant waa Koros Mangu Jaan gaay fa ne yëpp ñoom mbay si tey nag ñoom saguwaarin ñoom aas bu kewel xam di sant waa Réfane di sant sama yaay bu baax a baax. di sant sama mag yi yëpp ñoom Mamour Fall xama mm-hmm. ñoom Baye Issa yi xama mm-hmm. ñoom Khalidou na gars yi may àndaat ay abu jonin ñëpp maa leen di sant. képp koo mm-hmm. xamante ne nii daal yaay san si Kewel maa ngi lay san di sant ñoom Jiga ñoom As. ñëpp daal bu ma limee damay juum di sant sama sama benn jigéen bu nekk Medina Binta hmm. nga xam ne moom booli ceeb yi moom chaque jour du du tegeeku chaque jour yi di ñëw du tegeeku benn yoon maa ngi koy sant borom reset di hmm. sant waa reset yëpp ñoom malaayin duudu yin hmm. o oh, xam nga ñoom Isaaxa yi nag Abdou yin ñëpp maa leen di sant ASC reset bi yëpp Xadi Jalo yin Fat Ndoo yin ñoom ñëpp maa ngi leen di sant combat bii daal en tout cas ñëpp ciy jàpp ku ma woo ku ma ñëpp ciy jàpp parce que xam nañu man champion laa bu nu ma jàppalee nañu am mbër bu nu ma bàyyee bàyyi mbër moo tax ñëpp laay woo di leen sant ñu ñëw jàpp ci ma duma waa ji daan ko gaynde nag bu dikkee gisee lu mu kii moom hmm. da cay jubal ndawal jërëjëf <laughs> xam nga di woo maire Medina yi ñu jàpp ci hmm. ñoom Bamba Fall ñoom Seydou Gueye xam nga hmm. Cheikh Ba sunu maire Jibi Thiaw combat bi da cee war a jàpp bu baax nag moom it Jibi Thiaw hmm. ama nga ñoom bada am si ñu taxaw ci combat bi jàppale ma ci bolo gi ama nga maa ngi sant waa Kër Ndiaye bi yëpp hmm. ñoom mbay waa carrière ba mbay nogoy mbay nogoy mbay woote waaw noonu ñooñu dañ ciy jàpp ah, woote kon kay mbay nogoy ba Kër Ndiaye dañ ciy jàpp ñoom sil hmm. sama gars yi nekk foofu yëpp mbawar mbawar ñoom laay waaw maa leen di sant bu baax di leen wax ne leen mooy loolu xam nga ñoom Pa Moussa yi ñëpp dañ ciy jàpp bu baax a baax. ayca jërëjëf ba rendez vous bala la 14 waaw rendez vous la 14 heures. la 14 lan. damay def open press. le 14 août damay def open press ak lépp. koy defee combat bi reset la. kañ nga koy defee combat bi daa mel ni jaral combat bi del maa jaral damay doog a bëriwaat. open press ak lépp du ma ba dara. tànn biir rek lépp day am ci biir. balaa damay def open press ba set ma laal tànn biir. <laughs> du ma ba dara. maa ngi doog a bëriwaat. <laughs> waaw kay macha allah combat bu ma jaral laa am nii nag. jërëjëf maa ngi sant gars yi ci bu maaro bi nii ñi may contact ak contact ak ñoom sama ñoom ma fi nii sama boy am combat yëpp. Hmm. di leen ñaanal ndam ñoom maam si mbay guy gi ñëpp hmm. waaw